yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko sa yaati min baadi kadabuna salaatun kullun yadda in nubuwa wala nabiya baadi mu ne gis nga bu ma fi jógee ñu ne waaw mu ne fanweeri nit dinañ fi jaar ku nekk ne yonent la mu ne dañuy fen sama gannaaw yonent dootul am pas-pas boobu nga war a nit taxaw ne yàlla ma yónni nga ah, yàlla mën na lu nekk ah. ñun suñ discussion yu man ak lu yàlla tële la ñu ne ñun suñu discussion mooy waa ji day fen kazab yàlla ne na day fen yonent bi ne na day fen yow boo buggee wax ne wax nga dëgg fen nga yow itam dina fekk fen nga kon loolu dañ ci bàyyi xel loolu duñ ko kafee waaye jamono ñëw na léegi nag ku ko neex ne gis naa yàlla ku ko neex taxaw ne gis naa yàlla ku neex ne am naa audience ci yàlla ku ko neex ñu ne yàlla wàcce na ci man téere waaye ñoom ñëpp kazaabu kazaabu loolu nañ ci bàyyi xel loolu yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne laa yantiqu anil hawa yàlla ne na du waxantu lu mu wax dëgg la ñaar contradiction yooyu noo koy gëmee yonent bi la ñu mujj yónni man yonent la alquran mooy téere bu mujj wàcc nañu ci man téere kooku kooku nu ko nu ko jullit mun a déggee bal boroom xel nu mu ko mën a déggee lan mooy indi loolu mooy pas-pas bu yàqu moo koy indi waaye pas-pas boo xam ne bu wër la bu baax la kooku mënul demee noonu ñaareelu tomb bi mooy ni ñu teree xas saxaaba yi noonu lañu tere xas boroom xam-xam bu jaar ci yoon ñoom lañuy ñuy tuddee aimmatul huda mooy boroom xam-xami njub ni ñu teree xas saxaaba noonu lañ ko teree ndax ñoo sës ci saxaaba yi saxaaba yi yonent bi moo leen jàngal ñu nekk saxaaba saxaaba yooyu ñoo jàngal ñi sësoon ca ñoom ñu nekk attaabiuun kon yonent baag saxaabam gën attaabiuuna ñoo ñu topp ci ñi fi des di